Oh, voilà càmm gi donc yegg si nañ ci mbay comme noo ko noo ko soulevé léegi euh, questionnement yu bari am nañu ci euh, xar yi nga xamante ne dañu des ci tabaski bi. waaw xar yi des na mais aussi tamit jar na am na ñu jaay am na ñoo xamante ni delloowaat nañ xar yi fa ñu ko jëlee woon maanaam ni julli jóge woon ci village bi. andi ay camion xar maanaam euh, lamb na daal. Mhm. dafa lamb xëy na nit ñi ñoo teel a jënd. dañoo ñu ci bëri nag secret bi ñu ci bëri nag dañ doon yar ay xar après dinañ ci développé lu bëri am na benn élément bu ñu demoon jëli ko bu pare ñu dem xool ko te ñëw mais lan moo tax boobu ba tey xar yi xaddi woo ci njaay mi na ngaa jaralul wala man moom wax dëgg neex yàlla samay xar jaay naa ko quoi parce que man du tabaski moom mboole xar chaque année maa ngi ci affaire xar bu dul ay tabaski xëy na ñi ma ci xam ak sama client yi nga xam ni yàgg naa ak ñoom daanaka man ci tool bi laay placé samay xar ñu dem seen yoon fii nag pratiquement sama yenn xaru copain yeeg ñoo fiy taxaw wala yenn kii mais man moom wax dëgg neex yàlla pare naa yàgg na. naka nga jàngatee li ñu naan xar yi dafa lamb xar yi jarul xar yi dafa cher. waaw mais xam nga xaalis amul te boo xoolee pratiquement Sénégal dañu ñeme rumeur ay xar day manqué day manqué day manqué man gawuma loolu pour man ci éleveur itam xaw nañ ci am part de responsabilité. comme nan. parce que bu fekkee da dégg li la jaral. bul xaar xar day manqué pour lor askan wi loolu bokkul ci yëfi doomu adama comprendre nga parce que ñun ñëpp ay jurit lañu kon donc ku déggul la arrangé man dama jàpp ne war nga mën a jaay sa xar. waaw ndax éleveurs yi ci bëri dañ naan xont bi dafa metti dafa cher xont bi dafa metti dafa cher moo tax du ñu bëgg di wanteer xaru yar yi te ñu ci xaar naka ngeen koy dundee yéen ñi yar xar yi. waaw mais xam nga doole yemul ñi ren tabaskee xaru coogal ñu ngi tabaskee xaru coogal ba te ñuy tabaskee xaru yar ñu ngi tabaskee xaru yar ba tey am na ay différence bi mais ku ne xam na ni muy xontu xaru coggal beeg muy xontu xaru yar beeg amul bu yomb parce que xont amul boo xam dañ la koy may da ngay dem fenn ñu koy may wala ñu koy sarax donc da ciy def sa xaalis pour mën a ne sa boo deful sa xaalis liggéey da ngay def xaalis génne xaalis boo deful xaalis doo dërëm xontu xar yëpp a mais nag ñi daan tabaskee xaru yar ñu ngi tabaskee xaru yar ñi daan tabaskee xaru coogal it ñu ngi ci xaru coogal ba tey amoon dañu ne éleveur bu nekk dañ la sas benn quantité qualité quantité boo xamante ne danga ko war a yar pour maanaam ñu bañ a jéggaanati xar yi ca bitim réew ñun ñu yaral suñu bopp suñuy xaru tabaski moo tax ñu laaj la tey ji yow ñaata xar nga yar en tout cas daal la ma jële woon sama biir tool non ci lim bi limal ñu <laughs> li ma jële woon sama biir tool xam nga wax bal la dafa grave da wax fii dafay teeree feneen te àdduna dafa doy war ay xale lañ dañ tollu ci wut kon lu ñuy wax lu ne dañ koy xool li wër te daal li ma jële woon sama biir tool jaay naa ko. benn bu ne ñaata ci xayma. waaw amoon naa ay cent cinquante. ay trois cent ay cent ay cent quatre vingt. amoon xaru soixante mille. ma wax dëgg yàlla aw ma ko lan moo tax yéen yi doo leen yar ay xar yu jëm soixante mille ay xaru yar. dama dul am ku ko jaay samay client rek samay client du jënd lool. la moo tax xaru yar mënatu a jar soixante mille wala quarante mille. waaw mais xam nga yaa ko waxal sa bopp mais nga xaru yar xaru yar lépp moom métti dara yombul tey bu fekkee da nga yar xar toog naan damay xool li ma ci def doo ko jaay. Amadou dëkk nga jógee ñëw fii Dakar. de région laa ah. Ah, am na xar yu des fii mbaa xar yu des bëriwul. ah bari na na de barke dem rek la ñu yóbbu fii benn camion. camion benn camion la ñu yóbbu fii. waaw toll na téeméer ak juróom-ñett fukki kara. waaw ah, tuuti rek lañ jaay. waaw lan moo tax. Ah, jaay jaay amul. jaay bi amul non xar yi wax dëgg yàlla xar yi yombul noonu. xar yi yombul njaay bi njaay amul. jënd njaay jënd xaw ma yar xaw ma daal bu tabaski desee man maa ngi ñëw fii bu tabaski ay fukki waaw. ba tey yaa fi. maa ngi fi. Ah, man yàgg naa ñëw fii nag. Hmm. yàgg naa fi fi ay depuis deux mille maa ngi maa ngi ñëw fii depuis deux mille deux mille cinq libar cinq fii tabaski naa fii tabaski naa fii fii fii libar fii côté bi six bi. lii bari c'est 2005 ak léegi maa ngi fi waaw tabaski bu ne maa ah, bokkuñu noonu la rek aduna noonu la rek saa yi neex rek saa yi day métti waaw bu méttee bu méttee sa côté rek nga xam noonu yàlla dogal waaw xaw xar yi ah xar yi yombuñ nag depuis foofu xar yi yombuñ xar yi moo yombuñ depuis ci kaw xar yi moo yombuñ ay xar cent mille ay xar cent mille ay soixante dix mille quatre vingt mille cent cinquante am mooy am loolu am na xar soixante dix mille am na soixante mille am na ah loolu il faut nga delloo ko loolu fi jaay boo indee boo indee xar bu toll na noonu léegi boo jaayee boo daggee xaalis yëpp day da ngay da day kii da ngay perte perte bi day ëpp il faut nga yóbbu foofu léegi mu ngi mu ngi nawet il faut nga yóbbu foofu nga bàyyi leen foofu. mu xamaa suul foofu ci àll bi la lañ nekk duñu dañ lekk dañu naan dañ lekk dañu naan foofu amul benn jafe-jafe foofu kam bu ñëwee demee foofu amul benn jafe-jafe façon mu yóbbu mu des fi des tuuti tuuti rek tuuti tuuti ba dama bëggoon jaay rek moom mun a fay sama bor yooyu ak lépp waaw xam ah man kay maa ngi fi ba mu munee fu mu munee am fii te tam xarit rek bu julee tam xarit ma seet li ma def ma dem waaw maa ngi waajal incha xam nga njaay noonu la rek <laughs> maa ngi waajal di incha allahu rabbi kay bu fekkee kay. fii fii amuñ ci problème am nañ jafe-jafe nag am na jafe-jafe pour nekkaay bi xam nga fii mun a dugg kër jàmbur nga tuur foofu ndox mun dugg fi kër jàmbur nga dem toilette fii boo amul fii sa mbokk da ngay sonn waaw te est-ce que kat innuñ fi ay ay ay kii innuñ fi ay ay ay ay xam nga bis xam nga at bu ne dañu indoon ren fii amul benn toilette. toilette amul fii boo boo soxlee tour ndox fa problème bu rëy ngay am. voilà Mbaye gis nañu euh, élément bi en fait c'est quoi, c'est quoi problème parce que dañu doon avant tabaski bi on disait même que boo moytuwul xar dafay manqué. Euh, et même fii conseil woon nga fi nit yi pour ñu dem gaaw a. jënd mais gis ni li non seulement dafa mujj bari mais que euh, li des moom moo ëpp. également xar yu ndaw yi ñoom ñoo ëpp on foofu laa doon gis na parce que. Euh, coggal bi bi ma ñoom tey jii liñ doon prix yi ñu doon jaayee coggal yi dafa seer maanaam ay cent 150. Ah. moom bi ñu ko laajee li mu wax ne xar yi gën a jar maanaam muy jar 80 mille ba 100 mille ba 110 mille mais xar yi jar 150 mille 200 mille yëpp daf ko yóbbuwaat. barki démb yóbbu na ci lu mat euh, camion xar delloowaat na ko. sama nga loolu tamit neexul. te aussi tamit euh, dëkk bi dafa amul xaalis. mu ko laajee dafa mu waroon ñi ci jënd que nee na nee na bu ko wàññee tey jii day daanu. day perte lu bëri. day obligé àll ba am na ñax mu delloowaat xar yi dina metti pour di leen yaraat jëmale leen déwén mais mooy tane ci moom ka perte te dafa am benn secret boo xamante ni xëy na sénégalais dañ ciy xaw a yeewu léegi kër goo gis mu ngi jéem a jënd benn xar bu ndaw di ko yar maanaam nit ñi doogatuñu xaar ba tabaski pour dem ci daral yi di jéem a xat-xatloo foofu aussi tamit am na ci ñoo xamante ni ndax ren éleveurs yi li ñu yar ci xaru yar dafa bëri torop torop torop teel koo génn ñi nga xam ne yàlla may na leen ko ñu teel a dem jënd teel a noppaloo ko buñ ko doon def chaque année nii tamit day gën a féexal dara li aussi tamit dina gën a tax ñi ñëw di jaay si dinañ wàññi seeni prix mais bu ñu ñëwee nit ñi songandoo leen dañuy aj prix yi te nit ñi dañu teel a dem jëndi ku ci yor dem teel a jëndi xam ne moitié bi ñooy am dernière minute dem jëndi te boobaa dina fekk ñu bëri dem jëndi na dara li du xat daal waaw d'accord euh, ku ci am euh, contribution wala laaj. par rapport ak li euh, wax ni que ni ñu bëri dañu yeewu ci système jënd xar bi. yar ko ba tabaski mais tamit am na ay risques mbay parce que dañu gis ku nga xam day jël xaram yar ko def ci li mu ci war di ko xontal di ko jënd ripaas et mu xëy xëy dee xam nga loolu da ngay perte tamit. Mm-hmm. waaw mais ñun sax dañuy xëy xëy rek dee. xar moom bakkan la yor maanaam ba mais xar. ñun ak nit ne. chaque ñuy jënd ci jour bi. soit mu dee la mais am na ci ñoo xamante ne am na ci ñoo xamante ne dañuy jënd xar balaa tabaski ñu sàcc ko. mais dañuy dem jëndiwaat kenn ku ci nekk ak sa sens. man nga jënd nga jënd mala di ko yar di ko toppatoo mu dee sax moo. sàcc ko ndax di nga xam ne lool sunu borom moo ko jël xam tey jii loolu bu mu pour man du du. des du tax nit ñi war a décroiser pour bañ a yar ku ci am espace boo mënee yar xar yaral xar man pour man xar bi nga jëlal jënd avant tabaski yar ko su la ko yàlla mayee nga jël ko yar ko ba tabaski jot nga roy ko moo gën fuuf ci xar bi ngay dem di jënd. mais mbay ban moo gën a coûteux ci ñoom ñaar booy seet. ban moo gën a. coûteux. comme. ku ëpp ku ci ëpp dépense. dépense ñoom ñaar que xaru coggal bi wala bi ñu yar ak yooyu. waaw. xaru yar amul prix bu muy yem. waxoon naa ko fi benn jour. tey jii mu ngi mel ni dépense xaru yar dépense la yaa bëgg a xam sa xar fi sa poos yem am na ñoo xamante seen xar ay croissant la lekk. croissant moom daf koy def te di koy def di ko wax. mais am na ñoo xamante ne ñu ngi koy def waxuñu ko. am na ñoo xamante ni dañuy naan dara nii seen xar ñëw ñu jox ko. exactement café wala boisson ci condition yu baax. yoo xam ne nit même mën na bokk ak ñoom xam nga tey jii. Ah. yow mën nga yar. nga am desu ceeb desu ceeb nga am nga jox ko ko. mën nga am sa xar nga yéene ko am desu ceeb sax yéene ko lu raw desu ceeb. amuur daf cee bokk. est-ce que boobu ngeen am yéen ci xar yi moom moo ñu mujj sonal ñun. c'est-à-dire xar bi nga xamante ne croissant nga koy jox di ko jox café nga def ko ci néeg boo xamante ne am na ventilo am na confort bépp bi nga xamante ne tey man mën naa dem tëdd fa fanaan ak moom euh, doo ko bazarder di ko jaay yenn prix c'est sûr. xar mala la yow yaa ko tënk yeew ko. mala buy lekk mais oh, mais ñun nit ñi. Ah. ñu ngi lekk croissant. waa nit nga wax bu jàppale nit ak. xam nga tey jii nit yow yaay dem di wutali sa bopp mais ki nga yeew tënk ko. kooku yaa ko war a dundal